couleurs. Donc nous avons fait la commune de Mereto également. J'ai dit, nous, étions à Cayenne. On a été à Malem, Niani. Nous avons fait euh, Koussanar également. Alors, vous comprenez les difficultés auxquelles les populations de la région de Tamba, ces populations sont confrontées à d'énormes difficultés. Comme, je ngi parce qu'on avait prévu d'être là à 18h, mais là il est presque 21h, euh, ouverture d'esprit ba heure bi kon man maa ngi jégglu bu baax a baax a baax ci retard alors concept bi dañ ne dañu koy ubbi pour waxtaan ak les acteurs sociaux mais également permettre à la presse de poser des questions par rapport à notre vision ñun ni ñu gisee Sénégal ni ñu gisee naka lañu war a réew mi à travers suñu mouvement le mouvement gëm Le mouvement gëm comme nous le ko nous vit un peu partout dans le pays et je crois que nous sommes responsables fii di ay responsable diversité commune yi nga xam dans département qui composé la région de Tamba kon maa ngi remercier vivement ci seen déplacement merci également à vous la presse d'avoir euh, patienté autant donc je vous remercie infiniment alors le concept open press dañu bëgg mu concept d'échange avec les acteurs sociaux les populations en général, mais également vous la presse pour que nous mën je comprendre lan mooy suñu gis est un mouvement citoyen avec une aspiration élective parce que en démocratie la seule légitimité est élective quel que soit yéene boo quel que soit Khalak boo quel que soit Dudu boo am boo bokkul fa ñuy décider et Bougan yéene na région bu parce que souvent da ngeen di dégg ci sumay may le Sénégal oriental mun na dundal Sénégal mais day que ñu foulons. le Sénégal oriental ressources yi fi nek nous ko utiliser ni mu sénégalais bu nek ci li ngay di sa teraanga mun na jóge ci Sénégal oriental dañu waroon yegg ci ñi dëkk ci yeneen région yi au lieu ñuy dem à l'immigration mais bu boobaa dañuy jóge seeni région di ñëw fii dans la partie orientale du Sénégal parce que ku ne xam na ne li fi am ci alal li fi am ci ressource buñu ko séddale woon ni waree ba kenn ku nekk mën ci am li mu yelloon kon yaakaar naa ne coono dina jeex ci réew mais malheureusement le secteur le plus florissant dans la région de Tambacounda yéen a ma ko gën a xam mooy dawal Jakarta

alors que nit ñi liggéey lañu ñu soxla nit ñi développer potentiel bi nekk ci ñoom lañu soxla et loolu souvent ci sumay waxtaan da ngeen di dégg ma koy wax ma ne li defoon doole kunda ou la commune de Tamba peut-être même la région c'était le chemin de fer chemin de fer boobu ba tay nous ñu def ci alaw ju bari mais yeen yéen gëna xamné chemin de fer pour fonctionner tout ni mu waré et du coup lu bëri ci perspective fret malien buñu ko exploité won ni war rek jeunesse kunda sur la dara parce que mën na indi xaliss bu bari c'est quand même 250 milliards la ñuy dugal ci gafa Sénégal at mu 250 milliards du lu le nombre de camions bi traversent sen tali bii bis bu nekk qui camions di jóge fii di dem Mali wala di romb fii di dem Dakar et loolu ñun dañ ci am xalaat bu yaatu ñu pour développer la région de Tambacounda au-delà des industries lourdes parce que vous voulez faire le fer de la ñun Sénégal nous dans la région de Tambacounda dans la zone de medina Foulbe, la commune de medina Foulbe. mais uranium beaucoup, ba léegi kenn exploité wu ko ni mu waree mooy di leen dimbali ak ay bourse sociale danañu ko gëna a ci livre bi parce que nag ñun ay liggéeykat la et c'est bien possible donc je parlais du fret malien Mané, fret malien le Google Sénégal À mu Amené, xam autoroute bi Bamako deux fois deux voies sur 1300 km. Dakar Bamako muy Dakar Tamba muy ou pa waa conteneur bu ñëw da koy teg ci train indi ko ci port sec bi wala 30 km ak 1300 km bi Grand Bassam le choix il est président Macky Sall ak li nga est-ce que tu as dit ngi oui di faj ak di dog bu mu non

ni moom nga nar a mel seen teraanga da ngay dem wuti bokk ma ci ñuy wax ne gone yi waruñu dem déedéet parce que man dama tolloon foofu ba génn réew man dama génnoon réew mi def comme ñoom dem immigré mais dama dem ba si yàgg suma xel yedd ma ma ne bu non suma lay je suis rentré des États-Unis un samedi le lundi ma dem une rédaction liggéey fais liggéey buñ ma doon fay un million deux jëm kaw dellu si wal fajri ñu may mais parce que moment bon, du liñ ma donne fay mo am solo fi ma c'est pourquoi je lance un appel à cette jeunesse. je sais vous êtes désespérés je comprends cette jeunesse l'avenir est sombre pour vous faites-moi confiance man donne une solution bi tax ngeen tekkee ci réew mi solution bi tax képp ku nekk ci Sénégal boo amee fulla ak fayda liggéey dong tax jóg sa ñàkk dana la parce que je dama am lu ma Sénégal dong ngay gis nit di liggéey di Sénégal rek ngay gis nit di ñak di tok il faut mettre un terme à ça bu ngeen toogee di xaar yalla yalla du wacc état sal kenn gërëm bu ngeen toogee di xaar yalla du yalla moy ñew def ci sen poste da nit ku baax day sabab yalla day fal njit waaw mais daf ko jaarale ci suñu loxo ñun jaam kon ki ñu war a fal mu war a jiite Sénégal dafa nekk ci seen loxo yéen ñii ku ci nekk kilo ceeb boo jënd dafa am impôt litre dëwlin boo jënd dafa am impôt la preuve yéen ñii ñëpp dégg ngeen ne budget Sénégal yokku na est-ce que yéen seen poche yokku na Non, c'est quoi ce que tu as fait Parce que le budget de l'ITIOP, c'est un impôt. Il y a une joie courante. Connais que tu es là, tu as fait une carte courante. Si tu as fait diesel, parce que l'autre voyage, c'est un diesel. Les kilowatts, 115 francs la donne déjà. Les gens ont 184 francs le kilowatt soit une augmentation de 60% après ñu jàkkaarloog sénégalais nan len leen wuy subvention bañ ci defoon dañ ko dindi dafa am ben waxtan bu am solo bu ma wax ak ben borom xam-xam je crois qu'il y a six ans de cela ma que ko subvention bi état di def ci courant ak ci carburant bu ma juumul bima ñu bi ko xaymaa chiffre yi ma ci jàngoon c'était 550 milliards ma ko man mënuma comprendre professeur Sénégal rek la gis ci réew mu ndóol boo xam ñi néew doole ma ko Sénégal rek la gis réew mu ndóol boo xam ne ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñooy fayal borom barke mu ne ma lu tax ma ne ko je m'explique man Bougane am naa V8 oto V8 mooy Land Cruiser euh, oto bu mag ne man damay dem Tiwaawan su may dem Tiwaawan diggante Ndakaaru ak Tiwaawan dinaa def carburant cinquante mille francs xam nga loolu man sama bakkan la man maa jël décision ne oto bu mag bii lay yóbbu te mënoon yóbbu oto bu ndaw boy bi yore jakarta bu de jënd carburant 3500 dañuy doñati ci 3500 wum ngir subventionner ma man mi 50 000. et c'est comme ça que ça marche tu es dans un pays bo xamné à la limite néw fi doolé wala ñak tooñ sa borom la alors loolu nak il faut mu dak lima tax may xex moy fexé ba sénégalais yi mënal sen bop lima tax may xex moy fexé ba yeen sénégalais yi ngeen vivre dans la dignité et dans la décence parce que nit bu amatul dignité nekatul doomu adam kon ñu ngi leen di encourager ci taxaway bi ngeen am di leen remercier ci confiance bi nga xam ne def ngeen ko ci gëm sa ba di philosophie boo xam ne ñun jàpp nañu ne du pour Sénégal rek pour Afrique la parce que nit bu gëmul boppam aljana sax du fa dugg kon encore une fois ñu ngi leen di remercier ci ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen fi et leen wax ne am na nañu mbégte lool ci ñëw ci région bu Tambacounda région bu Tambacounda wax naa leen importance am mais yàlla dafa def bi suma soxna génnee àdduna ñaari weer mu ngi nii defuma benn activité mais tey jii mooy sortie bi ma njëkk def bi ma premier ministre Amadou Ba ñëwee jaale si du may damay yëg si suma kër suma yaay ne ma waamee yow nu nit di ñëwee di la jaale si ngay politique ma ne yaay politique dama am metit

am na ñoo xam ne bu leen dalee dañuy toog xaar bés bu rafet kon ki ka war a faj du kenn ku may ñi yàlla jox lenge yi ci réew kon ñooñu suma ma jàkkaarloog ñoom comme li leen fi dese bariwul amaana li leen fi dese bariwul ñaar la wala ba ci ñetti weer mais ñaar ba ci ñetti weer yooyu jàpp naa ne mën nañ ci sauver ay doomu aadama parce bu ñu leen taxawoo ci wàllu paj googu on arrivera à quelque chose. C'est pourquoi nous avons yéné de bu ci Tamba Nous bu vous Nous ci programme 2024 nous nous hôpitaux yo ay hôpitaux yu mucc mais ñun rek ci nous avons des hôpitaux sont en parce que le Sénégal a un problème spécialistes et nous avons un plan d'urgence qui est déroulé entre 2 et 5 ans pour former 10 000 spécialistes de la santé. Dans hôpital de simulation, nous avons des hôpitaux qui sont en xalaat la boo xam ne jàpp nañu ne wér-gi-yaramu doomu aadama yi dafa am solo kon jàpp leen ne yéene bi ñu mooy fexe seen dund doon dund bi gën seenu nekkin doon nekkin bi gën bu doon noon alal lay wut wala tuur lay wut yaakaar naa ne suñu borom am na lu ma ci musal mënoon naa toog suma kër mais li ma tax a mooy suñu doom yi suñu jarbaat yi

yàlla du wàcc état sam kenn kër bu ngeen jógee takk seen ndigg man Bougane pare na pour ànd ak yéen pour que incha allah deux mille vingt quatre Sénégal ñu teg ko ci loxo yeneen yoo xam ne du loxo politicien yoo xam ne du loxo ay politicards professionnels du loxo ay nit ñuy naxaate du loxo ay nit ñoo xam ne seen loxo dafa takk loolu nag yéen yéen ci mën daal moo tax ñuy wër réew mi di waxtaan ak yéen di échanger ak yéen di am mbégte ci teew bi nga xam ne teew nañu ko fii nii ci Tambacounda maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm je je me mets à la disposition de la presse euh, pour mën a tontu ci seen i laaj jërë ngeen jëf.